i euh, ñàkk yërmande gi sénégalais yi am ci ñoom ñàkk euh, patience bi tax na ba ay mbir commencé naa am arrestation loolu on l'avait dénoncé sous su Macky Sall tey jii ni ku ci mel ne Bah Diakhaté par rapport ak ce qu'il a dit euh, ci Ousmane Sonko ci ñi muy àndal vidéo bu njëkk bi sax c'était avant la présidentielle bu mujj bi xëy na moom moo moom moo waral arrestation bi mais est-ce nekkuñu juste di appliquer li Macky daan def parce que aussi Pastef c'était des centaines de membres qui étaient en, prison pour moins que ce que Bah Diakhaté a dit. waaw ouais, mais ils font ce qu'ils reprochaient à, à justement et ils n'ont même pas fait deux mois ils ont déjà deux détenus politiques à mon avis. Mm leur a tendu un piège. waaw ouais, il ça. parce que ce matin. Mm -hmm. j'ai lu des extraits RFI sur le net. Mhm. j'ai lu des extraits du journal Le Monde. mais mhm. on parle partout de Bah Diakhaté. sur le plan du droit sur le plan juridique li ñu koy amul. Mhm, mooy lan. offense au premier ministre xaw ma et cetera. ça n'existe pas dans l'arsenal juridique du Sénégal. je crois que il a de bons avocats qui vont. est est-ce que c'est le premier ministre est-ce que c'est pas une personne maanaam ku ñu offensé wax ji ñaaw procureur jug ci wala am ñu porter plainte est-ce que du loolu lool loolu rek la. gis nga man chaque jour. je suis Bah Diakhaté mhm. dama koy suivre chaque jour c'est un garçon intègre te souvent lu mu lay wax dafa am fu mu koy teg dafa am mhm. ay firnde bon c'est vrai man, aussi pour le, cas du colonel Cité c'était ci mbedd mi ñu bëri voilà daan nañ ko wax seulement man yi nga xam ne man mënuma ko wax mhm. parce que mag laa kilifa laa c'est vrai warma bi moom mayuloo ko xale yi ak seen fukk ñoom ñoo koy wax surtout que dañuy appliquer réciprocité ñi ñi te nit wax na fi lu gën a raw loo xam ne baa jaxase baa jaxate deful sax un centième bi mm-hmm. l'actuel premier ministre lan la waxul fi mais ak leur gars qui est aux États-Unis je vais pas dire que parce que ñi defoon nañ ko dañ ko redef non je ne dis pas ça mm-hmm. mais dama bëgg wax ne rek baa jaxate même bu fekkee ne juum na peut-être qu'il est allé un peu loin mais yu bëri yu mu wax dëgg la il faut le libérer immédiatement ça il faut le dire mm-hmm. même l'imam là Ndao je crois faut le libérer immédiatement parce que ils doivent. ils doivent na savoir que. Mhm. les gens n'ont pas peur. actuellement ñu ngi leen di bàyyi les cent jours d' de grâce man état de grâce. mais est ce que l' opposition sera écoutée parce que bi ñu leen sanctionné yàggul ah c' est encore récent est ce que mën ngeen wax jamono ji lu sénégalais yi dégg. pour man daal l' de grâce jeex na. Hmm? ba ñuy tiital nag dañuy tiital ñeneen. parce que ñoom dañuy fa ñoom dañuy fàtte ne. qu'ils ne sont pas sortis ex nihilo dafa am ñu leen jiitu woon doon xeex. Mhm. depuis cinquante ans. le Sénégal n'a pas commencé ak ñoom. moi ñoom la ñuy tëtër naan dugg nañu kaso. 1971 ak léegi ñaata at la. 1971. ça fait 53 ans. j'étais en prison à 100 mètres. waaw à cause de la politique. ñu bari su ñoom juddoo gu ñoon